الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر ما لبس الحجيج ملابس الإحرام الله أكبر ما رأوا الكعبة فبدأوها بالتهية والسلام الله أكبر ما استسلموا الحجر وطافوا بالبيت وصلوا عند مقام إبراهيم الله أكبر ما اهتدوا بنور القرآن وفرحوا بهدي الإسلام الله أكبر ما وقف الحجيج سعيد عرفات الله أكبر ما تضرع في الصفا والمروة بخالص الدعوات الله أكبر ما غفر لهم ربهم وتحمل عنهم التعابات الله أكبر ما رموا وحلقوا وتحللوا ونهروا فتمت بذلك حج الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إخوة الإيمان يلقننا العيد الأدهى الصبر والتقوى والفداء والتضحية بقيت الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom nu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko mbokk jullit yi lan lañu tabaski di jàngal mooy tabaski daf ñuy jàngal muñ di ñu jàngal ragal yàlla di ñu jàngal joxe sa bopp ci yoonu yàlla waaye di ñu jàngal sacrifice chaque jour jamono ju nekk idul adha yutillu alayna kullu am ونمر به دون أن نأخذ منه الدرس الذي ينبغي أن يغير منا كل شيء mbokki jullit yi li yàlla nattoo umma bi tey xeet wi muy xeetu islaam bi mooy jullit ñi mooy tabaski day ñëw di romb at bu nekk tabaski ñëw nekk benn fan daa di romb waaye amul lu ci mbokk jullit yi di jëlee ñoo baree bari ci ñun du ñu jëlee dara ci tabaski lu dul sol naa ci yére bu bees jënd naa ci am xar sama wa sama waa kër ku nekk teral naa ko sama soxna léttu na nangam defaraat naa nangam loolu dong la dañuy jëlee ci tabaski mu daal di jeex du am benn jeexital ci ñun ixwatal iman yambari an yuxayira minna kulli shay tabaski dafa waroon changé ci ñun lépp wa yabas fiina aatifi taxyir taxayir wa taxyir mu dugal ci ñun waaj soppeeku wala deñ ci jikko bu ñaaw bi nga yoroon wala melokaan bu jaaduwul bi nga yoroon ci sunu dund wa yajcaluna nastaid li taqdimi kullu tadxiya yatlubuhu min addin wal aqida li tabaski waroon def ci ñun mooy mu def ci ñun ñu préparé bépp sacrifice bu sunu diine laaj ci ñun loolu la ñu tabaski waroon waroon dugal gars yu gëmoon démb tabaski nga xam ne xamoon nañ ne tabaski sacrifice la tabaski jaamu yàlla la tabaski muñ la tabaski amul seetaan am na ci kenn koo xam ne mu ngi tudd julay biib julay biib kenn ci saxaaba yi koo xam ne kenn xamu ko woon ci saxaaba yu mag yi bis yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam toog di wax ak saxaaba yi waa ji daa di romb yonent bi ne ataarifuna man haada ndax xam ngeen waa ji gaa yi daa di siggi ne ah kii mooy kan yonent bi ne innahu julay biib kii mooy julay biib nit koo xam ne waa suuf xamuñu ko waaye waa asamaan xam nañu ko balaa muy lekk nit ñi lekk ba pare desitu nit ñi lay lekk boo ko fekkee ci jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam bala muy tëdd ñëpp tëdd fu muy fanaan suuf lay fàkk daal di tëdd kenn du ko romb nuyu ko kenn xamul waa ci yonent bi ne ko yaa julay biib innahu julay biib kii mooy julay biib yaa julay biib allah tatazawaj waaye lu tax doo takk soxna mu ne waman yusawi julay biib laa jaaha wala maal kan mooy takkal julay biib jabar amul daraja amul alal ku koy takkal yonent bi continue ak sahaaba yi mu daal di romb deuxième jour mu romba yaa julaybib allah tatazawaj lu tax doo takk ya rasulallah wa man yuzawwiju julaybib la daraja wala maal wala jaax amul daraja kan moo koy may jabar amul alal parce que yooyu ñooy nattukaay yi tey yooyu ñoo ñu yàq sunu diine ñoo yàq sunu adduna lépp daraja la lépp am am la lépp jaay mbagg la moo tax jaamu yàlla yi du am benn jeexital bëccëg bu toll ne tabaski sacrifice bi ci yàlla santaane yàlla lim ci santaane ci sellal yàlla lim ci santaane ci muñ ci jaamu yàlla waaye du feeñ fenn bëccëgu lekk naan fo mooy yàlla loolu lañ ko mujj def yaa Julaybib alla tatazawaj ya rasulallah wa man yuzawiju Julaybib laa jaah wala maal yow Julaybib doo takk soxna ku may takkal aw ma daraja aw ma alal ku may may doomam troisième jour yonent bi wax ko loolu mu tontu même tontu yonent bi ne ko demal kër sàngam diw boo demee nga ne leen maa leen yónni nan la may jabar pour wan leen ñi tabaski préparé woon ñi tabaski jeex ci ñoom bi mu yegsee kër googu fëgg asalaamualeykum wa rahmatullah waa kii du julay bi mu ne waaw man la kay loo fi def mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo ma yónni pour ngeen may ma seen doom jëkkër ji ne ko julay bi laa jaaha wala maal wa man yuzawwiju julay bi amoo daraja amoo alal amoo dara kan moo lay may jabar jabar ji daan ne ko atuzawiju julay biib bi haasal xaal da ngay may jëba julay biib jabar ci melokaan bi mu mel xool ko xoolal jëmm jéeg yaram bi ni mu mel da nga koy may fa isa bi fataat xale bu jigéen ba yonent bi doon joxoñ daal di yuuxu ca biir saal ba ne leen da ngeen di delloo yonent yonent bi da ngeen di dàq ko yonent yónni wallahi du génn kër gi lu dul ñu may ma ko ndax yonent bi du yónni nit sama kër ñu koy dàq xale boobu dañ koo yar ci tawxid xale boobu dañ koo yar ci iman dañ koo yar ci alquran nuroowul ak xale xappati nuroowul ak xale xóotal nuroowul ak xale fiiso nuroowul ak xale dangal nuroowul ak xale mees nuroowul ak xale likra wala jumbax aawut déedéet xale boobu xala xale qiyaamul layli la xale buy taxaw di naafi la guddi di jàng alquran ñu takk sëy bi ñuy préparé sëy fa isa bi julay biib première guddi bu mu war a fanaan mu dégg daaiy allah yawut yaa xayla allah irkabi fasu yàlla yi takk nañ leen dañuy jihaati ana góori yàlla yi julay biib ak tuwaaletu ndaw si mu daal di romb ndaw si ndaw si di ko xool mu ne ko wuyu ji naa yàlla woote yàlla bi woote na c'est parce que ñooñu tabaski dafa jeexital ci ñoom mbokk jullit yi tabaski dafa ñëw ci ñun pour am lu mu bàyyee ñun lu dul ay biir yu fees lekk yàpp ba bu ñu leen nee jógal julli ji tisbaar jot na nga ne man kay mënumaa jóg dem leen te ñëw tabaski loolu taxuloon mu ñëw fal aqida tabaski dafa ñëwoon pour changer sunu pas-pas zalika li annana taawadna an naaxuza kullu munasabati diini iraqan wa taqlid li tax jaamu yàlla yi mënta jeexital ci ñun tey moo xam ngénte la moo xam céet la moo xam dëj la moo xam kori la moo xam tabaski amatul benn jaamu yàlla tey bu jullit ñi di def ba jaamu yàlla bi jeexital ci ñoom nga dajeeg jullit nga gis wax dëgg yàlla kii jaamu yàlla bi mu doon def tey am na lu mu ko bàyyee xoolal xar yi ñuy rey ñaata xar la ñuy rey bu leen wax ci àdduna bi xool leen rek Sénégal bu leen wax Sénégal jëlal koñ bi nga nekk ñaata la ñu rey xar yooyu lan la ñu symbole mooy nit ku ñu waroon a rey yàlla sauvé ko tërale ko xar moom imaginel tey bu fekkoon ne nit ñooñu la ñuy rey fu ñu jëm moo tax bëccëg bi dafa war a am lu mu jur ci ñun mu bañ a nekk rek loo xam ne dafay passé ñu def ko urf aada defoon naa ko daaw loolu sax la nit ñi di def defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal terminé amul lu muy des ci ñun loolu donc koo fi gis mu nuyu na nga def maa ngi fi baal maa baal nañ laax defoon nañ ko daaw fekkee déwén xanaa lekkoon nañ yàpp daaw lekkaat nañ terminé mbokk jullit yi warul nekk taqlid toppandoo diw des na damay def dafa nekk mutaassir fi haza sadat bi gayrina min al yahud wan nasara wal wasaniya noonu ñuy toppandoowee yahud yi sunu diine tey lu ñu rol mooy toppandoo yahud ak nasaraan lu ñuy defee seen feet dañuy defee mariage yi dañuy takk fii léegi soxna nga gis oto bu ran nit ñi daal di langaamu ñu solal ndaw si nangam góor gi nangam nan la ñuy toppandoo ci lool ngénte yi noonu la foog ndaw si dem salon ceet yi noonu la foog ñu dem salon tabaski yi noonu la foog maanaa di toppandoo suñu diine ci yahud ak nasaraan ak xërëmkat yi ni ñuy jaamoo yàlla ñun noonu la ñuy def xarum tabaski léegi xarum xërëm la xarum xërëm nan la nekkee xarum xërëm waa ji jënd xar balaa muy jënd day dem di seetlu ban xar laa war a rey ndax am nag dégg naa xar yoo xam ne ku ko rey sa kër kër gi day alko moom lañ laan xar xar musiba mbaam kumba ne trois melo la am da ngay dem di xooli wala bu ñuul kukk ay wala bu weex tal yooyu wóorul na am sax benn tupp-tupp loolu xarum xërëm la boo ko jëndee ba pare indi ko takkal ko sagar bu xonk bis tabaski buñ koy rey nga jàppal xar bi jàpp ñu bari ci ñun tey jii bu ñu demee di rey dañuy jàppal xar bi buñ koy rey jabar ji ñëw jàpp ci ndigg bi taaw bi jàpp ci ndiggu yaay ji ka ca topp jàpp ñu jëm medd ma suñu reyee ba pare jël xar bi di càpp xar moomu léegi lan la suñ ko reyee ñu ne jëlal barki démb am na benn waay bu def benn waxtaan ci benn WhatsApp benn jigéen dafa tiit dégg waxtaan bi woo ma ne ma waa ji daal xaru tabaski bàyyiwu ci dara nee na béjjén bi nangam lay faj nopp yi nangam lay faj làmmiñ bi nangam lay faj geen gi nangam lay faj yeel yi nangam lay faj kawar yi lu nekk la waa ji wax ci xarut ne lu nekk lii lay def lu nekk lii lay def léegi loolu lu fu mu ñu nekk mooy xarum xërëm la nekkatul xar moo xam ne dañ ko jox yàlla tabaraka wa taala moo tax tabaski bi du jeexat du jeexital da ngay gis ñu bëri fii ci ñun tam xarit lan la ñuy reere yeeli tabaski dañ koy jël wësam ko teg ko ci benn morso denc ko ba mu wow koŋ ñu ne la yeel yi moom nga am droit tam xarite loolu ban sunna la jaamu yàlla la war a nekk sunu borom moo nu wax ci alquran lan yanaal allah luhumuha wala dimauha walakin yanaaluhu taqwa minkum soxlawuma yàpp bu bëri kon ma wax leen ngeen rey gëléem a gi nag soxlawuma kawar gu deret bu bari yàlla mu ne ragal yàlla taqwa a taqwa ragal yàlla la soxla nga def li nga war a def tey jii léegi-léegi bi ngay indi ñëw ñu ëpp ci ñun fii ana seeni xar mu ngi ci buntu kër yi ñu yeew lan mooy sabab nga def ko ci buntu kër gi c'est parce que xar bu ngande nga am amoo béy boo amoon béy doo ko yow ci buntu kër gi loolu moo lay wan ne yàlla nekkatu ci c'est parce que yaa ngi wonewu na nekk am am ixlaas na sell na jur ci ñun diin waaw beneen bi lan moo ñu loraat mooy dañuy feetu comme Allemagne laïcité yi ni ñuy feetoo lay yi nga xam ne gëmuñu dara tey boo demoon kenn ci këram mu nga tëdd di nelaw bi muy jënd xar lan la def moo jabar jeeg doom ji ñoo ànd ci oto bi ba yegg si daral doom yooyu jiitu jabar ji topp ci mu topp ci ginnaaw doom yooyu wax papa xoolal bi papa xoolal xar bi jabar ji ñëw taxaw mooy waxaale bu waxaalee ba pare fay su fayee ñu dugal ci oto bi su ñëwee wàcc dem tëdd nelaw julli ji sax du ko def ba nit ñi rey mu ne bon appelez le cas diw cas woo leen diw na ñëw quoi li waa ji waxoon moi je ne suis pas fort en matière de prière borom kër kilifa nekk ci sàppe gars yi xool ko yaakaar ne mën na am na diine ñu ne ko seex bi gars yi jiite mu ne moo je ne suis pas fort en matière de prière sunu jaamu yàlla yépp noonu la mel tey mbokki julit yi allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila mbokki julit yi diine dafa war a jur ci ñun ragal yàlla jur ci ñun changement jur ci ñun xew-xewu diine bi lan moo xewoon tey ba ñuy def nangam su boobaa la ñuy yëg jaamu yàlla waaye diine boo xam ne fola wala tey guddik tey foo bi tàmbali na ci fajar gi nii nekk nit ñi danañ occupé léegi xar yi bu ñu reyee ba pare pare nañ après luy xew lan mooy xew tey ndax jaamu yàlla mooy mooy xew tey ndax nit ñi dañuy dajaloo di jaamu yàlla di julli di zikar di jàng alxuraan nangam ak nangam lan mooy xew fo mooy yàlla ci bis boo xam ne yow mi lañ waroon tëri rey la yàlla sauvé la tey war a nekk ci yow yow mu sukru bisu sant yàlla tey war a ñëw nekk ci yow bisu fàttaliku li xewoon tey jii ñan kan moo defoon li ba yàlla fay ko waaye lan mooy nekk ci ñun tey mooy bisu mooy yàlla loolu moo nekk suñu diine foo caaxaan amatuñu benn yitte ci sunuy xew-xew lu dul defoon nañ ko daaw rek fekke déwén ixwatal iman walaw annana ihtafayna bi ayaadina واحتفلنا بمناسباتنا الدينية صادرين عن روح الدين الحقيقية وعاطفه الشرعية لكان كل عيد وكل مناسب تتصل بالدين بصلة قريبة بوكي بو فيكون ني سونو دين نيم نو سانتاي نانو جامو يالا دافاي نان كو نون والله دانن غيس لا يونس بي عليه الصلاه والسلام دان غيس دانن غيس لا صحابه يي غيسول wala xaaris yenente bi alayhi salatu wasalam xëy na kayfa asbaxta ya xaaris xanzala xanzala xanzala danaan toog ba ci yàgg mu ne fay leen nuyoo malaaka yaa ngi leen di nuyu fay leen nuyoo malaaka yaa ngi leen di nuyu gars yi ne ana malaaka yi mu ne ñu ngi nii naaw tiim leen fay leen leen nuyoo ñu ngi leen di nuyu naka la xanzala mujj nekkee nit koo xamante ne day toog di saafoog malaaka yi su malaak su malaaka yi rombee mu ne leen fay leen nuyoo malaaka yi ngi nuyu parce que jaamu yàlla bi jeexital na ci moom waaw jaamu yàlla bi jeexital na yonent man su ma toogeeg yow rek damay fees dell ak ngëm yàlla waaye boo fi bàyyeekoo rek dem ci kër ga jaxasoog doom yéeg sama imaan bi day rës yonent bi ne ko wallahi soo ci saxoon nga bloqué ko ni ngay toogee fii ngëm yàlla bi di fees soo ko bloqué woon wallahi di nga saafoog malaaka yi mu mujj di ko téye ngëm yàlla bi dootul wàccati moo tax mu mujj naan leen fay leen nuyoo malaaka yaa ngi leen di nuyu c'est parce que mbir mi jeexital na ci moom mbokki jullit yi kon noonu lañ ko war a defee mu nekk xew-xew boo xam ne dafa war a am diine tey boo duggoon ci sunuy mbedd dugg ci sunuy kër fii ba da nga war a gis diine wallahi tabaski li ci diine am mooy bisu iid bisu julli gi buñ jullee ba pare diine jeex na jógal nga dugg ci kër yi ndax di nga gis diine jaaral ci mbedd yi duggal ci place yi publique yi ndax di nga gis diine bëccëg boo xam ne lépp diine la waroon doon ñu jagleel ci yàlla benn une heure de temps mooy julli ji ñibbi si pare si mbubb yi waaw sol yeneen yére nag waa ji nga gisoon léegi fi mu sol xamis bu weex allahu akbar ah sol xamis bu weex tal sol koppati amaana sax yor na kurus yor siyaada waa jooju ngay gis léegi sawaay mu sol benn jëngal ngand maami daal karas karas tibéy bi dëngal kab bi ana diine bu mu doon woote ana fu mu demoon léegi-léegi fi mu demoon léegi-léegi lan la fuuti woon kan la fa fekki woon xanaa kooku nekku fi xanaa kooku gisa gisu ko ci li muy def xale jigéen yi moom waxal lu la neex kenn ku nekk ci ñoom moom diine sax nekku ci seen bopp yi kon mbokk yi nañu bàyyi xel bisub tey nañu bàyyi tey bëccëgub tey xel nañu xam ne bisub sabr la muñ ibrahima dafa muñoon moo tax yàlla mu ne ko reyal sa doom mu am benn doom sël benn jabaram am benn xale bi nekk kenn ibrahima muñ digganteem ak boroomam tër xale bi di ko rendi doom ji muñ moom kenn la parce que lan la muñ mooy yàlla moo santaane jabar ji muñ parce que yàlla moo santaane moo tax olof yi wax nañ dëgg ñu ne ku muñ muuñ bu ñu muñee muuñ nañ waaye tey dafa war a nekk bisu tadixiya sacrifice nga xool li nga am sa dëkkandoo bi nga xam ne amul soo reyee sa gàtt nga dindi sa nga jox ko ci au lieu que ngay puukarewu yor loo xam ne yaa xam nga ne fii yaa fi ëpp doole yaa fi ëpp kàttan nga yor loo xam ne xam nga ne mën nga ci dimbali nit ñi nga leen di jaay dooleeg fekk sacrifice la war a nekk mën nga xañ sa bopp sax joxe nga xañ sa bopp joxe li waa ji di wax aka bëri aka bëri aka bëri ñuy wanewu di tiitaru fekk duñu am ëllëg dara ci borom bi tabaraka wa taala jàngeen histoire Muhammad ibn al Muhsin dafa amoon alal lu muy joxe waaye day wanew lu muy joxe day wanew lu muy joxe day wanew lu muy joxe day wanew yàlla nar ko baaxe mu tëdd guddi gént yowmal xiyaam jot ñuy régler jaam yi diw exil diw exil ba ñu exil ci moom ñu ne kii day defoon na lu bëri lu baax waaye yëpp ngis ta la ko yàq moo tax affaire yi balance yi mënta diis te léegi teg nañ balance yi tiyaaba yeeg bàkkaar yi bàkkaar yi ëpp ñu ne kii safara la war a dem mu gént di ko gis mu ne safara laa war a dem ñu ne ko waaw parce que say bàkkaar moo ëpp te da daan xëy di joxe loxo bi du lemu nii waaye dafa doon gis boppam xanaa dëkk bi de maa fi ëpp lu ma joxe xanaa dëkk bi de aw ma fi moroom xanaa dëkk bi de kenn tolloo feek man li ma fiy def kenn du ko def muy yuuxu di jooy di jooy ba caag mu dégg benn kàddu ne ah kii de mosoon naa am benn jigéen boo xam ne dafa xiis génn di wari lu mu lekk te moom mi moom it loolu daloon na ko balaa muy am xiifoon na moom njabootam mu génn di utali njabootam lekk mu dajeeg benn xaritam mu jox ko ñaari mburu bi muy tourné mu gis jigéen joo xam ne dafa xiif yor doomam yi ndaw si ne ko doo ragal yàlla ci xale yii nga may leen ci li nga yor nee na mu xalaat doomam xalaat boppam xalaat soxnaam waaye mu xalaat ñaar ñi mu xam ne aljanna taxaw na safara taxaw na mu daal di jël mburu yi jox xale yi nee na ndaw si jooy xale yi lekk ñu ne ah defoon na lool de xanaa ñu xool kon nañ jël ñaari mburu yi ñu teg ko ci balance bi ñu xool ñu jël ñaari mburu yooyu mu joxe woon fi sabilillah ñu teg ko ci affaire bi daal di diis waaye mu des tuuti ñu ne jeexal na de jeexal na de des na tuuti rek tuutee ci des loolu rek moo ko mën a sawee tuuti boobu ñu ne waaw lu ñuy xoolaat suñ ci borom subhanahu wa taala ne leen xool leen rongo ñu ndaw sa ndaw sa mu defaloon lu baax ba ndaw si jooy jël leen rongo ñi ngeen peese ko ngeen xool ñu jël rongo ñi teg rongo ñi daal di diis ba daaneel tiya bakkaar yi ñu ne ko sëwe nga dama nga dugg aljanna mu tiit yeewu mu xam ne yàllaa ko naroon baaxee kon bëccëgu sacrifice ngir yàlla ixwata al iman aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira وسبحان الله بكرة وعصيلا إخوة الإيمان فقد جاء في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إحراق الدم بك جلدي نيونا جوغي سونو يونت محمد صلى الله عليه وسلم hadis boo xam ne suñu ndey Aïcha moonu ko nettali nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul jëf bu nit di def mu rëy ci bisub tabaski bu gën tuur deret min ihraqi dam fa innahu yaati yawma alqiyama bi quruniha wa ashaa'iriha wa azlaafiha yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na tiyaaba bi gën a rëy bi nga am mooy ëllëg yawma alqiyama tabaski bi nga rayoon gàtt bi nga rayoon tabaski bi nga defoon yàlla dina ko indi yowmal qiyaam dina indi béjjén yi dina indi kawar yi dina indi wey yi mu ne deret ji dana toll fa yàlla buñ koy rendi deret ji balaa muy laal suuf deret ji egg na ci yàlla kii rey gàttam bu tegee paakaam ci boli xar mi tudd boroomam bu nuy rey gàtt tabaski bismillah allahu akbar allahumma inna hada minka wa ilayk bismillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar bismillah allahumma inna hada minka wa ilayk waaye di rey gàtt di tudd sàmba wala di tudd diw ci barke diw ak ci darajey diw ak diw ak wala diw loolu xar moomu dafa xaraam xaraam naa lekk wa ma uhilla bihi li gayrillah lépp lu ñu rey tudduñ ci yàlla baaxul kenn war ko lekk kon nanu bàyyi xel loolu bu baax a baax xar mi bi nga koy rendi bi ñu tegee paaka bi ci boli gi waa ji di bés toq deret bi njëkk a génn balaa muy laal suuf egg na ca yàlla egg na ca yàlla tabaraka wa taala xoolal tiyaaba yu rëy yooyu hadis boobu mbokk yi bu ñu demee nañ ko fekk ci ibnu maaja xaakim wéral na hadis bi mu ne wa inna dam la yaqaw min allah bi makaan ولا يقبله الله هذا القبول العجيب إلا إذا صاحبه الإخلاص deret jooju nga dégg yàlla daf koy nangu xar moom nga dégg yàlla daf koy nangu yàlla du ko nangu ci nangu bu yéeme bu gaaw bi lu dul mu sell set wecc defoo ci lenn yàlla rek tax nga tabaski ngir yàlla ngir yàlla du njaboot gi waaye sama njaboot xaw ma nu ma leen di def soxna si xaw ma nu ma koy def mbokk yi xaw ma nu ma leen di def dëkkandoo yi xaw ma nu ma leen di def ana yàlla na yàlla tax su yàlla taxee boo tabaskee nga am tiyaaba bu tol noonu waaye bu yàlla taxul boo rendee yàpp kese kese kese nga am ak coono bu dul jeex yal nañ ci yàlla musal ixwatal imaan nañu mooy tëndiku ngistal ci sunu bisub tabaski wa jannibuhu riya wal mujaara assuma wa itibaa'i al-urf wal aada nañu mooy tëndiku ngistal ci sunu tabaski nañu mooy tëndiku déggtal ci sunu tabaski nañu mooy tëndiku aada ci sunu tabaski nañu mooy tëndiku miin tàmm ci sunu tabaski bis boo dugalee ngistal ci sa tabaski sa jaamu yàlla yàqu na ci lépp li nga def nag ci journée bi yépp mooy tandikul ngistal mooy tandikul déggtal waaw diw de li mu def diw de li mu wax diw de li mu sol diw de li mu rey diw de saa yoo fekkee looloo tax nga def moo tax maa ngi leen di mooy tandikuloo filmer seen xar yi di ko dugal ci Facebook filmer seen xar yi di ko dugal ci YouTube yow mi am xar nga filmer ko di ko dugal Facebook loo bëgg na ko nit ñi gis na nit ñi gis sa xar su fekkoon ne sikkat nga am wala xar mu jigéen wala am mbote ndax di nga ko dugal facebook ñu ne yaa ngi nii xool leen xool leen diw ba di gis ngeen moom de ab béy la rey ndax di nga ko dugal facebook kon yàlla taxatul yow mi dugal facebook moo tax facebook yàq na jaamu yàlla yëpp na nga def attention mooy tandikul ngistal mooy tandikul déggtal mooy tandikul aada aada aada aada ak bidaa dafay yàq jaamu yàlla lii lañ daan def waaw nañ ñëw def ko defoon nañ ko daaw ah ñëpp ñëw rey xar mi càpp ci deret ji defoon nañ ko ku ko def da ngay fekke xanaa xamu leen loolu xërëm la kenn ci ñun bu mu ko def loolu dafa yàq jaamu yàlla waaye dañu mooy tandi ko rey xar bi ba pare ku nekk ñu ne am na ci njëkk yi am nañ ci nijaay yi am nañ ci maam yi am nañ ci xaaru tabaski ki ci am kenn kese la mooy yàlla keneen amu ci leneen ndax yàllaa ko moom yàlla ñim la jox loo nga war a jox mooy lan alfuqara wal masakin ak kër gi jeex na amul keneen su fekkee da ngaa bëgg maye leneen bàyyi ba beneen bis nga rey ku ne nga yónnee ko li nga koy yónnee waaye bii moom jaamu yàlla la bii yàlla rek ko moom yàlla rek yàlla rek lu moom keneen amu ci leneen soo ci buggee dugal keneen sa jaamu yàlla boobu dafay yàqu kon nañ mooy tandiku yooyu ci xarum tabaski daf koy yàq fa ida ahraqa ahadu minna yowmu nahri dam bi haadi lixlaas wa daayi aliman wa min ajli alxusul ala rida rabi alkarim faqad daa nafsahu al manhaji lislam kenn ci ñun bu rendee dara taxul mu rendi lu dul sellal ngëm yàlla ngir am kontante yàlla yàlla lii maa ngi koy def ngir nga bég ci man kooku day ndeysaan mbokk yi joxe na boppam ci yàlla tabaraka wa taala kooku de yàlla dina ko nangul mu am taraanga adduna am ëllëg taraanga allaxira kooku de ëllëg deret jooju ñuy wax dana yegg ci yàlla dina fekk tiyaaba yu toll noonu daal di koy toll mbokki julli yi ñoo ngi jégglu bu baax a baax a baax waxtu wu nekk danañ taxaw fii di wax te la ñuy wax ñun genn wàll gi yëpp defuñ ci dara kon ñoo ngi jégglu bu baax a baax a baax sunu borom di leen jégglu di leen baalu àq di leen baal ax bu baax ñoo ngi leen di sàpp kenn ku nekk ci yéen nanu baal jiite ci diine dafa metti te léeg-léeg nga jiite ay nit yoo xam ne wër na la ñoom ñu ñoo la raw ngay juum di wax ay njuumte ñu bàyyi la ci biir rek ngay def ay toj-toj benn mbokk jullit dafa gaañu ndeysaan doon dem Guinée ak njabootam daal di gaañu accidenté ñu indi ko ci jàkk ji delloosi ko ñu sang ko ba pare ñu koy jullee gars yi ñëw di ko seede benn mbokkam ñëw mu ne kii xam ngeen lu mu doon uti Guinée boobu koor gaa ngi doon ñëw xam ngeen lu muy uti lu mu doon uti Guinée ñu ne yow ñu ne da doon tafsir Qur'an rek imam bi ko doon jiite daal di toog daal di tiit daal di toog ñu ne imam lan la mu ne kii ngeen ne lu mu doon defi ñu ne kii de da doon tafsir Qur'an mu ne kii bis bu nekk maa koy jiite musumaa musumaa juum mu gàgganti ma ndeke mokkal na alquran bay tafsir waa dëkk bi ne ko kii année bu nekk moom moo ñuy tafsir alquran suñu jàkk mu ne man de dama jaax jaaxle naa kii de musumaa woon ne sax mokkal na innaa ataynaakal kawsar moom ci ginnaaw rek lay nekk ne tekk ca kaaral du buuse du wax dara xoolal loolu ndeke da doon tafsir ji Qur'an weer wu nekk moo doon tafsir seen dëkk waa dëkk bi ñu ne kii xaafisu quran la kii day tafsir kii day jàngale diini ku nekk di wax imaam bi daal di jommi imaam bi ne kii dëkk ak naag moom fukki at musuma même ci kanamu jàkka ji sax musu faa dem su ñëwee dernière sàppe lay nekk pour ñun ñëpp xamul dara lul jaay bitig allahu akbar kon ñoo ngi leen di jégalu bu baax di leen balaax di leen balu di ñaan yàlla tabaraka wa taala li ñuy ñaan bis bu nekk ki ñu may occasion bi nga xam ne moo nu may ñuy jaamu fi sunu borom tabaraka wa taala nga xam ne moo tabax jàkk ji yal na yàlla yokk mën-mënam ak kàttanam yal na yàlla taxawuñ ñun ñëpp yal na yàlla jéggal ñu góorgóorlu bu nu delloo ca kër ya sàmm suñu bopp sàmm suñu njaboot xoolaat suñuy jigéen bu kenn bañ ku la mere bu kenn bañ ku la mere sa njaboot mere la moo gën yàlla mere la sa njaboot mere la moo gën yàlla mere la waaw sa njaboot mere la moo gën yàlla mere la bu nu delluwaatee ci kër yi ñu xool njaboot yi bu nu nekk ci kaw rek tëdd wala dem doxi suñuy soxla bàyyi suñuy njaboot ñu nekk ci ay bakkaar góor ak jigéen allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك قبل الموت توبه نصوح اللهم انا نسالك قبل الموت توبه نصوح وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وآفينا في من آفيت وتولنا في من تواليت اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا Imam Diallo maa ngi leen di ziar maa ngi leen di ziar